برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن يوينان Jangan ada nama. Telepon la ñu mën a Thierno moom moo ñu boole tombé na ndax def naa mu ci tant bi moo ñu boole yàlla def ñu déggante téléphone ba yàlla def ñu gisante keroog ci koor bi moom anniversaire mu ñëw sama nekk nag taalibu baay yàlla def man ni ma leen xam ñu bëree bëri ay taalibu baay lañ donc avant loolu maa ngi ko gis si téléphone boobu muy def ñu si kàddu ñu ngi si kàddu nekk lool. yàlla def na ñu gisante loolu daal mooy suñu relation bu baax trop te jox ma cër Tafa bis bu anniversaire Zeyda Khady Diaw di bis bu màgg tey si faydu Maolana Cheikh Ibrahim tey boo fi teewee looy yëg waaw rek parce que xam nga ñun ay nit lañu yoo xamante euh, wala avant ñuy gëm baay sax wala ñu war a suñu anniversaire yi ñoom sax ay sabar lañ waroon def comme ay artistes lañu waaye bu jamono soppeekoo tey ba suñu anniversaire bi nga xamante ne dañu fas yéene tudd yàlla parce que ñu fi euh, sant Muhammad Rasulullah sallallahu di ci waxtaane bàyyi loolu ak mbégte la. wax ñu wan rek ñun suñu ànd par rapport ak ni ñu meloon sa àll bi nee hmm. waaw ñu bàyyi moo sabar ak yooyu yëpp doon ñu di def parce que ci la nekkoon. Hmm. waaw lu mu nekk nekk artiste la. day sawar moom dëkk sama biir nañ ñoo waral ndax comme euh, dañoo jël suñu bopp jox ko bàyyi mm. loo xamante ni pour dëgg yàlla war nañ ko war nañ def mm. tontu Tafa mën nañu laa laaj benn question ndax tontu Tafa taalibe Baye la dafa def comme tarbiya yi waa kër Baye ñu si di def waaw wala déet. waaw ah, man nag sama is sama histoire ak Baye bu tey waaye xam naa ne comme fii mbir la boo xamante ni ak tey du lañ lañ ciy waxante. Baye daal man damaa tëdd ba guddi moo ngeen ci. façon boobu xaw ma sax waaye. ba gént jëm ci daal. suñu mën waxee. xaw ma nag kan la. ma yeewu suba teel di ko waxtaanee beneen bi dama yeewu suba teel rek ñu may ma faxatu ñu kii mooy bàyyi ñas loolu daal moom moom booleeg bàyyi. waaw loolu moom booleeg bàyyi. ah ba tey daa mel ni dootoo tabaay ñas nañ sa digganteeg bàyyi waaye tarbiya bi ñuy wax waa kër bàyyi ñas na am na seen kii yi ñuy wax noonu affaire yooyu ñu naan ay tarbiya ak yooyu. Ah, da ngaa def seen tarbiya yooyu wala. tarbiya bu ma nag ndaxte xam naa ne ko def nag parce am naa ñu ma wax wax ma tarbiya bi xam nga rek. waaw yàlla dogalagum na ñu def ko. ak liggéey bi xam ci jamono daal xam naa tarbiya sax moo doole loolu. xam dafa ni. lu ñaan gaaw lool. ci gaaw lool. li ma la wax daal mooy bàyyi moom. moom la ñuy xëy tey suñu gan bu màgg yi tey tonton Tafa ñun nag suñu dañu am benn rubrique bu ndaw boo xamante ni jamono ji jot dañ koy lancé Sénégal tey boo amoon tey kàddu yi nga xamante ni yaa ngi koy dégg askanu Sénégal góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi tey loolu lan lay doon. waaw mooy. dégg ndaw ñu war ah jamono bi wax wax wax wax dafa bëri mm-hmm. wax moom waxu pétrole la wala nañ ci def nangu daal mm-hmm. te ndaw ñu bañ a nangu ñu leen di jiital ci yooyu mbir mm-hmm. dugal leen ci luñ xamoon parce que ndaw moom comme dañuy kaas ni ñoom pour ndaw ñi la ëllëg da ci ñu bañ a jiw baal la ba nga xamante ne tey bu ñu mën nga cee daal parce que gars yi ñu def ay marché marché nekk na loo xam ne positivement wax li nga bëgg a def waaye daal ñu def ak salaam parce que dëkk bu jëlee Sénégal tamit dëkk la boo xamante am na yoo xam ne xëy na bi. Mm. te pétrole comme ni ñu koy waxee dëkk bu mu dugg seytaane nga fay mm. wax. ma yaakaar nag war nañoo mën a dellu euh, ci li kilifa yi wax. Mm. kilifa yi li ñuy yeewe war nañ ko a dégluwaat. ñu ñëpp yeewu ci jamono bi tool yi. Mm. parce que Sénégal bi tool yi taxaw na. di wax ndaw ñi euh, am na loo xamante ne comme ni ñu ko waxee boo ci def ko ko weesoo war ko mën a mm. ndaw lu mu nekk comme par exemple man artiste la. ñoo mm. nekk da nekk nekk artiste. war nga mën nag ak diine boo mën a euh, jox yàlla li mu mën ba tey. waaye ngay jox yàlla li mu mën. dara waaj dara da lay yóbbu rek. wax nag di euh, góor yi na niiram jigéen ñi mm. euh, te jàppale ndaw yi daal mm. jàppale tout temps bi loolu moom man sama sama combat la mm. macha allah mbokki fayda ko gisandoo ki dëgg yàlla histoire bi ñu nettali si bàyyi doy waar lool lool gént ko ñu may dafa toom loolu mooy yàllaa leen boole direct kenn doxul seen diggante tonto Tafa sa kàddu gu mujj booy tàggatoo waaw di ñaanal xajal comme anniversaire la. Hmm. te wax dëgg yàlla bu ko gisee xale la. Hmm. yàlla xiir ko ci mu def ko ni mu ko def nii tànk di di tudd yàlla di sant Seydina Mohamed. na xale jigéen yu bëree roy ci li muy def. nag boo neexoon am na taar bu defee sama sama naturel. Mm. am na taar bu war leen dee tànn biir. Mm. waaye comme ni ko waykat bi waxee nan dellu ci yàlla balaa ñuy delloo. moom mu dellu ci yàlla teel. waaw mm. ñu koy ñaanal rek mu dund sandaar. yoo xamante ni dara mu dugg jàpp. loolu daal lañ koy ñaanal anniversaire bi bu déwénee mu yokk yokk bay def ci saak. yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def si bàyyi bàyyi ak bàyyi. برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان